Amadou Ba Pastef donc donc muy ñëw si kanam Fapal kon dégg nga kàddu yi Amadou Ba nee na aar suñuy élection bu mel nag Saa Wolof moom mu ñuy wër jamono ji Fapal <laughs> dañ ko rek jox ko ko moom Saa Wolof di activiste également Saa Wolof nag mere woon nañ la trop waaye garaaw Saa Wolof nga def sa déclaration rek avant ñuy dugg joxaat kàddu askan bi. mais man euh, def naa ko léegi xanaa defaat rek bon di. mais loo loo sol. pétrole du fay lakk du Macky mooy dox jàmm loolu moom xam nañ pétrole du fay lakk loolu dëgg la wala du dëgg maanaam mbir mi doo ko taal ba pare yàq koo bare taxaw ne yaa koy defar kii mënut defar xam nga lan lañ wax ñii ay xaritam ay soppeem parce que loolu la woote ñan la woo Idrissa Seck nee na waxtaan naag moom 15 mois doo ko rejoindre kan la woo double bouton ak kan Amadou Ba mi nga xam ne moom bu dof dof loo nag bu jëm seeraas la moom moom instant bi dafa waroon dëggal boppam ñooñu la woo ak ñeneen ña koy wuy yi nga xam ne bon ay soi-disant euh, léegi ñoom ñooñu ay doomu ndayam lañ ay xaritam lañ nañ ko wax ne ko peuple bi bañ na maanaam ñaani bañ na gis nga bu forcé du ko jik lii gën a sedd ci moom dafa am sama benn waay démb damay ree ba sonn nee na Macky Sall yaa l'Occident bu nekk ci gannaawam peuple bi nekk ci kanamam yàlla nekk ci kawam bàmmeel nekk ci suufam nuñ koy waxeeti Sonko nekk ndeyjoor joor am nekk càmmoñ fan lay muccee xam nga luy wax ji mu dem ànd ak entourage am dem jaar côté càmmoñ bi dem parce que ci suuf moom am paxa fa nekk. am nag. amnistie pour lan baal maanaam nangam amnistie bis buñ ko fi defee compter leen ci man yóbbu leen ñu mel ni ñun ensemble xam nga lay wax ji mooy lu loxo def loxo mën na koo dindi duñ ko duñ ko négocier duñ ko wax di jooy duñ ko wax di ree beneen bi sax kii tax amnistie mën a am kiñ mën a def lay nga xam ne moo moom moo ci mënoon a dugg loolu yomb moom laa gën a wóolu muy Sonko te jàpp naa ne du jaay askan wi kooku ñàkkul jom kooku du tappale Sénégal ko ñor ñal dem ca biir ba nar leen a amnistie ñooñu boo leen woowoon tey ne leen ndax ñu amnistie ñu ne la ñoo lànk. sa libération. libération kan non loolu amut problème libération ci nii mbaa ci naa soit Macky libéré ko daf ko jàpp te waru koo jàpp xam na ko wa ilaa ñu jëlee fi Macky loolu mooy liberté te liberté boobu moo dàq muy joomaay di moom ñaanuñu wutuñ ko. xam nga li ko jaaxal ci ku ni Sonko ak ñu mel ni ñun yàlla daf ko booleeg maas goo xam ne nii maanaam lan nga leen mën a tiitale mooy da nga leen duma danga leen tëg wala sax li may bañ a tudd mën nga leen a rey bon wax bu naan mën nga leen a mooy nit rek nit mën na leen a rey loolu noonu wala nga xañ leen alal wala dara mais ñooñu ragalu ñoo dee ndax réew mi ñooñu ragalu ñoo dem kaso ndax réew mi ñooñu ragaluñu ku leen duma ndax réew mi moo tax dañu am problème dañu am problème xam nga ñi mu daan amal affaire mooy ñoo xam ne xam nga xeexu badar xare badar ñetti téeméeri nit lañ woon ci luy tolloog junneeg nangam kii leen xam nga lan moo doon seen différence mooy li ñuy wax force de désespoir wala force détermination bi nit ki war a mën a àndal ci xeex. ndaw ñi xare badar lañu def fas yéenee maanaam kii xare fas yéenee solaat mbubam fas yéenee xeeñ lu neex fas yéenee dem tëdd ak jabaram wala moo fas yéenee dem lekk ceebu jënam ak ki nga xam ne tey nii dee ci xare bi ak génn ak dee yam bu mu ci mën a def dañ koy fay mënu leen a bokk détermination moo tax ñu mel noonu la ko yàlla jox comme comme comme ay adversaire papa ñu avance papa jël ma drapeau bi ci kaw jël ma drapeau bi c'est le symbole le symbole de nos valeurs le Sénégal on peut produire une fois euh, ñi ne jamono di déglu également kaddu ñeneen waa coalition bi mu turé déglu Sénégalais Macky suñu dak Macky suñu dak Macky suñu dak Macky suñu dak Macky dégas Macky suñu dak Macky suñu dak papa papa papa euh, ambiance bi mooy sénégalais dund ambiance bi papa donc mu doon li nga xam ne également da si baax pour xam euh, li ne moom mooy réew mi taxawaay bi donc quelques leaders yi nga xam ne moom mooy ñoom ñoo euh, seek a ngi gis euh, li nga xam ne moom mooy les sièges donc di xaarandi également li nga xam ne moom mooy la présence d' acteur acteurs gis nañ fi ñoom saa wala Amadou Ba également Pastef gis nañ ko fi donc gis nañ fi également une forte présence li nga xam ne moom mooy ñeel wàllu sécurité bi si ginnaaw aux alentours Euh, yéen a ngi gis également ñi nga xam ne moom mooy euh, sénégalais ñàkkul nag ñu gis kenn ki nga xam ne moom teg nañ ko loxo salaamaaleykum kilifa gi euh, fàttali ñu tur ak sant bi maa ngi tudd Silma Mbaye Saraxule dëkk département de Bakel lan moo waral sa teewaay tey fii sama teewaay bi mooy lan Macky Sall daf ñu trahi daf ñu trahi tey daf ñu trahi ëllëg parce que ñun deux dañoo am benn sart ak Macky Sall en 2012 2012 dañ ko voté pour lan Eh, mu toog eh, ci bopp réew mu en tant que président de la république moom daa foo eh, ne ci royaume la ñu nekk comme Arabie Saoudite daa foo ci royaume la ñu nekk comme Maroc léegi dañoo bëgg mu organiser suñu élection avant le 2 léegi ñu tànn ku ñu bëgg bu dee Bassirou la ñu tànn Bassirou ah bu dee keneen la ñu tànn keneen mu goree tuuti ah lool moo ñu moo tax ñu ñëw fii en tant que jeune patriote léegi Macky Sall lu ñu koy wax. mooy avant le deux na organiser élection nit ak kàddoom Macky Sall daf daf ñu wor daf ñu wor lu ñu ko doon xaar. saraxulee waaw waaw mun naa si wax tuuti encore léegi ci saraxulee lu may ñëw mooy may lancer benn appel suñu suñu mbokk saraxulee muy département de Bakel région de Tambacounda na ñëpp génn manifester Macky Sall na organiser suñu réew léegi ma ñëw ci saraxulee wàcce waga kebe mu la onu mu la Macky Sall ana datninga ani organiser le plus vite euh, possible Macky Sall 2000 euh, 2012 voté nañ ko pour mu toog mais aken sim nanti o fay royaume ña aken sim o fay euh, Maroc wala o fay Arabie Saoudi ana élection ko ani organisé 4 le 2 avril oga mul jam Diomaye fayanantaxu Diomaye na taxu parce que patriote ni ñanoy o tunant Diomaye aani xumbane e, e, fe e, aanu xumbane zenni ñakar oytunante jomay fay o sususuyu jikkenna alaga sénégal den kar parce que souffrance sénégal gollen texe wacca chômage ngobo chômage ngobo yaharun kara chômage ngobo lumnun kara manam dëkk bi dafa metti dëkk bi dafa metti dëkk bi dafa metti liggéey amul depuis buñ kala eh, programme élection yi liggéey amul ñëpp taxaw mu jël borom drapeau bi ah borom drapeau bi il brandit euh, euh, drapeau national du Sénégal mu doon symbole kilifa gi ñu ngi lay nuyu. lu ñu attiré nag mooy euh, drapeau bi nga brandir nii parce que ça daam leen lu muy euh, signifier par rapport ak marche tey bi. oui un citoyen mobilisé euh, devant ce qui se passe sous nos yeux et qui en définitive ne repose sur rien qu'un mépris et euh, que, euh, euh, et, et, euh, au dictateur en fait. am nga espoir ñu wax ko ci kanam olof. am na am na espoir bu bu leer parce que dama ko natt si man rek man bokkuma benn parti politique bokkuma benn parti politique mais depuis un certain temps ak lii am fii je me sens tellement révolté que manifestation bu am damay jox ñëw fekke ko te xam naa ne ñi mel ni man bari na. or du champ politique ah citoyen yëpp révolte bi la ñuy dund waaw te yaakaar naa ne bu ñu continuer nii li leer mooy dinañ am lu ñu bëgg waaw parce que man de delà de tout aussi am na loo xam ne dafay ñëw dafa may metti daf may tere nelaw sax. papa euh, vécu bi lan la par rapport en politique gis nañ fi yeneen régime yu fi nekkoon. donc coppite bi lan la euh, jeunesse yi euh, jeunesse bi téye bañ mu mu mu naxsaay. coppite bi mooy li ñuy wax xëj na am na parti politique buy wax ne dindi fi système la dafa am loo xam ne dafa jeex. moi qui te parle j'ai 65 ans j'ai 65 ans donc am na lu ma jot a dund. mais gis naa loo xam ne euh,